yegg na ndar nag wàcc saxaar ga laataa timis di jot nee na kër Ahmed Khouroyssi it fa la dal di dale fa la nekk la des ca weeru safar wa ak ak weeru gàmm wa lu dul ñaari fan di alxamis ak aljuba borom tubaa nee na ñaari ñaari weer yooyu di safar ak raabixu awal yàlla may na ma ci may yoo xamee ni ba ñu xamee lislaam ba léegi kenn mësu koo am foofee ca ndar fa la mottalee fa la mottalee nag xasi dëkk asmaawul ahlul badri wax na it ne wala xëytu fi tilkal muddati fi tilkal jazirati ma la askuruhu aba abadan te adduban mahal xayri maskuuri nee na daj naa ci boobale il ca ndar loo xam ne ci ciw métit mu tar nee na du ma ko nettali kenn kenn kenn ngir teggin gu dox sama diggante ak sama borom zalika tarbiyul xayyu lazi la yamuutu te nee na loolu nag li ko waral mooy tarbiya gi ma yàlla sama borom di ma tarbiyal boppam moom mi nga xam ne mooy dund te du faat kon sëriñ bi ñëpp xam ne it ne ci li nit ñi di wax di ko kii it mooy ndax la diir ba mu fa ne fa nekk weer la ak fukki fan muy ñeent fukki fan yu mat sëkk la def ndar diggante boobu nag mu fa nekkee ci la ci lañu nekk nag di xalaat nan lañu koy def nee na lii moo tax mu yàgg fa ndax booba conseil privé ba tàmbali nag di dajaloo ñiy seet nan lañu koy def ñii ne nañu ko tëj nañu nañu ko nañu ko tëj kaso ñu ne bu ñu ko tës tëjee am na pexe génn wala waa réew mi ñëw dajaloo fa ñu ko tëj te kon bu boobaa faw ñu génnee ñii ne nañu ko rey ñu ne kon bu ñu ko reyee waa réew mi ñooy révolté ko ci kaw nguuru France ñii ne kon nañu ko génnee mu dem exilé ko loolu nag mu dëppook moom la mu bëggoon ak li yàlla bëggoon ci moom ak li yonent bi bëggoon ci moom muy muy génn gi dem dëppoo yi li nga xam ne moo dox ci digganteem ak rasulillahi ndax yonent bi it lu ni mel moo doxoon lu ni lu ni mel moo amoon ci moom ndax moom yonent bi de ku nekk xam na ne ba mu koy ba ñu koy génnee ca gàddaay ga muy dem ca yéefar ya booba màkk yéefar ya yépp dañoo bokk daje ci seen barab bu tuddoon daarul nat wax te mooy moo doonoon seen seen assemblée. ñoom ba ñu dajee seen biir lii nu wax ci sëriñ bi rek la ñu waxoon ñi ne nañu ko nañu ko tëj ñi ne bu ñu ko tëjee am na pexe génn wala julli di daañu defi pexe ba mu ba mu génn ñu ne nañu ko rey ñu ne bu ñu ko reyee. l'islam bi yëpp jullit yëpp daañu dal ci seen kaw te bu boobaa it loolu lu kii lay doon ñu ne kon nanu ko génnee mu dem ba ñu waxee nanu ko génnee nag fekk iblis a leen sol xel mooma ñoom ñu nangu ne nanu dañ koy génnee noonu la ñu génnee rasulullah ba mu dem Medina moo tax alxuraan di dikk di ko wax ne wa is yamkuru bika lazina kafaru li yusbituuka aw yaqtuluuka aw yaxrujuuka wa yamkuruuna wa yamkuru llaha wallahu alxayrul maakiriina yàlla di wax yonent bi ne ko fàttalikul bala gaa yi fexeel ñii ne nañ la tëj kaso ñii ne nañ la rey ñii ne nañ la génne gaa yi nag di lali pexe tey plan man yàlla it ma nekk ci di la fexe ñu seet man pexe mooy mooy mooy sotti waxadd asaabani llahu badalan salaasatihim bi salaasatim borom tubaa nee na yàlla ñett yooyu ñu ñu ñu ma tegaloon ci ñu tëj ma ak ci ñu rey ma ak ñu génne ma nee na yàlla wutale ma ko yeneen ñett ñu ne ko yan ñett la mu ne waxtal xayibati xadd balaxtu ma tablaxul asiyaahu min al martabati suyuxati imaanan wa islaaman wa ixsaanan wa istilaaxan nee na jamono yi may yi may yi may dem ci géej gi mbooleem martaba bu waaju baax ma sa am ci kaw suuf am naa ko ba mat sëkk teg ca it maa leen ëppoo nit imaan ëpp leen lislaam ëpp leen al ixsaan walakin baaxiya ala ma yuqliqu nii wa yusxiru nii fa xadduhu asaddu alal alal alal min waxiil sinaani waxtiqi bannaani nee na it diggante boobu dafa am loo xam ne munu munu ko woon a ñàkk ci boppam nee na loolu it ñàkk ko ñu jëloon ay bëñam buur ko ba mu jeex tàkk dagg ay ay ay ay ay baaraamam nee na moo ko gën a ndax booba nee na loola munu ko woon a ñàkk ñu ne ko loolu mooy lan mu ne matuk sëkk imaan matuk sëkk lislaam ak matuk sëkk ihsaan ak mu zal ak mu laazimatun rasulillahi kal ahlil badri nee na ak taqook yonent nii waa badar ñi taqook moom ci fépp fu mu jëm nee na booba munul woon a ñàkk loolu yi lii moo taxoon ñu woowoon sëriñ si nekkoon doon woote ñépp nag ci Afrique bi sëriñ ku fi newoon di sëriñ rek ci booba jamono woo nañu la kuñ ca wóowul rek dafa fekk xëy na booba yëgunu ne ab sëriñ nga wala woote woo ak sëriñ waaye ku fi newoon di woote sëriñ rek booba conseil privé bi ca ndar dajale woon nañ leen ñoom ñëpp ñu nekk juróom-ñett fukk ak ñett ngir signaloo leen ndax booba ñoom xamoon nañu ne xaadimu rasul moom am na lu lu nekk ci moom loo xam ne moom lañ la ñuy wax moom du ko wax mukk te lañ bëggit du leen ko defal kon moom xamoon nañ ne moom du signé la indi nag woote ba ak numéro 4 ndax am na ñu naan lettre yi alphabet bi moo tax te lettre yi buñ ko toppee buñ ko jëlee la la santoon ay dara nekk fa rek presque mat na fa waaye teguñu ko woon foofu tubaab bi moo xamoon rek na mu ko tëralee woon doon woote ku ca ñëw nag li ñu bëggoon nga signé ko mooy da ngay seede ne yàlla amul weddi yàlla ne yàlla du buur rasulullahi amut alquran it ay gént la soo bañee ñu jël la jox la gaynde ga gaynde ga gaynde ga jëfandikoo ko la ñu daal di woote numéro un muy Serigne Serigne kokki Mouhamadou yàlla Aminata Diop moom la ñu njëkk a woo signaloo ko loolu mu ne ne ko weddil ne yàlla du buur yonent bi amul alxuraan ay gént la mu lànk ñu daal di koy jël sànni ko ca kaafu gaynde ga mu jëfandikoo ko numéro deux ñu woo ñu woo Serigne Makka Birama Xaadi mu lànk ñu sànni ko ci biir kaaf ga it gaynde ga jëfandikoo ko numéro trois ñu woo Serigne Balla Coket mu lànk ñu sànni ko ci biir kaaf ga gaynde ga jëfandikoo ko. ba ñu agsi ci numéro 4 di Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul nu woo ko moom mu dikk daal di signé ne qul huwa allahu ahadun allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahadun yàlla rek kay buur la daal di signé ñu daal di koy jël sànni ko ca kaaf ga gaynde gaynde ga it daal di mel ni xar mu gis borom daal di dikk ci wetam daal di waaf sëriñ bi jël mburu ma mu yoroon ak tàndarma ja di ko ko xonte te ku ne xam na ne gaynde wata boor ndawal lay xéwloo. nee na moo tax mu ne xar mu mel ni xar mu gis borom ba ca la daal di wax ne fustu bi ahazin samanati la taksudu silxatuhu waliyal ana usdu nee na man de sama njëg gi ma jaayanteeg sama borom lambul de ñu ne ko lu tax mu ne gaynde gi bi ma jàkkaarloog moom dafa dooy nipp ci sama wet ba mu wëlbati ko nag la daal di delsi nag ca ñamu bawoon foofa fekkaat fa 80 ya ndax 84 la ñu woon 4 yi la ñu woon noonu 3 ya des nañ fa kenn rek dëpp delsi ci 80 ba mu ñëwee ñoom ñu laaj ko ne ko noo def ak gaynde gi ñoom ñu loolu borom tubaa tontu leen ne man man man takkun bi rasulillahi nusratuhu intalhu usdi fil ajimiha talin ni nee na ku nekkal rasulillahi te muy dëgg boo tasee gaynde gaynde gaynde it mooy ci sa kanam waaf foofee ca ndar foofa fa la tàmbalee keroog xasiid ak asiru keroog la woolu muudu njaay màbbee wan ko bayit wu njëkk wa ca xasiida ga ne ko yow la yàlla def ngay samay seere damay dem damay dellu si fi laa lay fekkaat li fekk may ne ko lii fir na nag li fekk may dellu si doo fi faat doo fi jug fi laa lay fekkaat ci diggante boobu nag ci la sëriñ bi nag nekk di taalif xaside gi tubaab yi nag daal di nekk nag ci tàmbali nag di seet lu ñu koy génnee ba mu dem keroog bi muy jógee foofu ndar xasida gi di asiru ma ngi ko bàyyi ci ci bayitam woowu di xuruurul wara xara nasara bi kay di foofu fa la samp xalimaam ginnaaw loolu nag mag ñi nekk mag ñi nag ña fa nekkoon nag ñëw nañu ci moom magi ndar ñëpp ñëw ci sëriñ bi di sàkk ci moom mu jiite leen julli muy leen man musaafir laa te musaafir du du du jiite juma ne loolu xam ngeen ko ñoom ñu nekk ci di ko sàkk di ko sàkk ba ni ko nag dañoo bëgg barkeelu ci yow bu daal di leen di wax ne leen nag jàppal leen ak julli naafile naafile gi it ba mu dikkee dafa ñëw jël mbooloo ma def ko ñaari sàppe benn ci kanam benn ci ginnaaw léeg-léeg mu jël nit ci kanam yóbbu ci ginnaaw léeg-léeg mu jëlee nit ci ginnaaw yóbbu ci kanam di def noonu di def noonu di dajale nit ñi ba mu yàgg rek mu dugg mu dugg ci diggante ñaari mbooloo yi ni ñu defee ñaari rang rek ci diggante bi mu am mu jiitu am mu nekk ci ginnaaw moom mu nekk ci digg bi daal di kàbbar daal di julli bi nga xamee ne nag daa julli ba sëlmal ñu daal di koy laaj ne ko nii nga def nii ana ana lu tax nga defee nii. mu ne yàlla damaa xamal ne ñi ma féete kanam ñëpp ñëpp ñëpp su ma dellu see du ma leen fi fekkaat moo tax ma leen doon leen doon jullee tàbbal leen aljana doog a doog a doog a doog a woy ci liggéey bi nafaa li xayrillaahu xabla fi ndari bi ahlil badri usuural kadari nee na yàlla dàq na musari ma ca bu njëkkoon ca ndar lépp lu may naqari ci darajey ahlul badar ahlul badar ñi ma àndal gannaaw lii nag la ñu nekk nag ci nekk nag ci pexe yi di ko jéem a génne fekk foofu ci ndar taalif na fa geneen xasida goo xam ne ndar la ko defee foofu ci jamono boobu waaye bariwut it ñu koy ñu koy indi muy xasida gi mu tuddee ilhamu salaami fi zabi anil diinil islam yàq ca tubaab yi it lu mel ni safara metti lool tubaab yi it loolu gën a waral it li tax ñu daal di koy jëlee ndar mu daal di jóge ndar nag ci bisub alxamis ñaar fukk ak juróom-ñett ci weeru gàmm ñaar fukk ak juróom-ñett ci weeru gàmm ci la jóge ci la jóge ndar googu wuti ndakaaru